loolu bu paree mu taw a Makka Makka la ñu doon Makka la ñu doon ñu tubaab ñu tubaab ñu tubaab ñu wax ñu ñu amoon ñu am ñu tubaab ñu am ñu tubaab ñu am ñu taw Makka am ngeen ndax ñu ngi doon ñëw laa suuna ma tuub laa ñu saa yëg la suuna ba mu pare di ci jëlee dëkk fii Makka yaa ngi ko xamee wu ñu doon ay weer nga jaa ba mu pare di ci jëlee dëkk. maa ngi jëm ci dëkk bu tedd bi nga xam ne mooy Makka te Makka googu yow xeex nga ci Makka seen fan nga bëgg Makka mu ko xam mën la. ñu ngi nuyu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngoo rek seen fan nga takk xare jëm Makka li ma yëngu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jëkk nga ñu dund ci yaam. loolu tawee na loolu. baawa am sa sa yow yi ñu aji wàcc nga daa ba bala bi ci bële dëkk. maa ngi doon ci dëkk bi ci Makka te yow ci ñoom Makka la bokk loolu moo laqad jaa'akum rasulun ci dëkk ñoo bokk. maa ngi doon ci Makka te yow doomi Makka la ñoom Makka la bokk waa Makka yëpp xam nañ ne Yonent sallallahu alayhi wa sallam ku gën a wax ci Makka moom la ko Yàlla yónni ci ñoom te loolu rek jaroon na ñu bañ ko weddi ñoom ñu weddi ko dëkk Makka moo gën ci mboolem dëkk yi Yàlla xaraamal na ko te suñ fa tuur dara bu fakkase wala ko rek bàyyi doo ko gaaru buñ rëbb aram ya te ndax Yàlla jaxase ji bëre ji jàkkale dem leen laal duñ takk garabam ya duñ takk sax ñaxam ma li xaw may makkara te loolu de jaw lu jëkk la ba léegi parce que boobu nga xam ne moo gën ci dëkk yi te yow fi nga dëkk maa ngi ciy jiw te waa li ñu gënoo ci ay jig mooy aadama te maa wala te am na mu jig maa ngi gën ci aadama ñu xam ba yàlla ci suuf ak mboolem yi ñu mooy mboolem doomu aadama yi daa waaye liñ dañoo ma bàyyi mooy yonent yàlla Ibrahima damaa war a ba am na mu jub mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ doon gis nag laqad xalaqnaa ñun doon gis na moom buñ saana nit ci kabaliñ ci coono rek yàlla na ne buñ ñu ci Makka buñ ñu ci wàcc ñu lam jur bu Ibrahima ak Muhammad ñu gëm ci mbir mi wala sax mboolem doomu aadama yi muy aadama ak mboolem lu jub lu yàlla doon doy bind na doomu aadama ci coono rek foofa ñu mën a jànkuwante ci coono rek loolu moom lañ gis la mu ne doomu aadama ci coono la ko yàlla bind moo tax bu dañ ci coono mukk moom doomu adama coono bu jëkk ba mooy yàllaan ko xof ci biir room moom la yàpp mu nekk ca ak xataf room nga ak ak xataf biit ba ak ak xataf room nga te ci sa njiitu bi ak sa njiitu borom moom ak biiram nga ñu ci boppam mu nekk ci yàq xat-xat yooyu sa roxo ne kay ci moom day dem ci yëngu ci jànkuwante bëgg a juddu ñooy nit ku xaw mu ne bëgg a juddu dama ñuy bëgg a juddoo di jot muy jànkuwante mat sax bu mu taxaw jaar bu ngeen di xate ak ñi comme ni ñu doon dalee bu jaar boobu di sonn di sonn di sonn ba génn. loolu coonoom bu jëkk bu juddoo bu njëraalewu dara bu ñëw ci dëkk boo xam ne kenn du fa dund lu may ko am dara doom bu juddoo bu xeex nii lay def day tàllal ay loxoom ñu war ñu njëraalewu ma dara bu ko defee coono bu ñu jëkk jànkoonte gannaaw ga mooy di jéem a nam bu dund ko mu lekk nag ak dundam yàlla nga ko defal ci wàllu ndeyam mais sax am na ñu nampé te tey ñu namp muy jànkuwanteel ba ko mën a namp te muy mën a namp loolu ak yoon la muy namp ak tànga jaar muy ñu am ay yaay weer rek daal di wute yaa ngi suñu dëkk ñu fas ñu fagoo ay teera tey sax bañ ba. mu tàmbalee bi saxam bañ di meneen beneen toolu weer ci moom te dafa ñeema taxa su ba ñeema taxa xam nga defee ndox laa yi gën a ñu daal di ko xelal namp gi nga xam ne xamoon na ko muy nguuram ñu koy rek xelal ko jommal ko nag mu mel ni bu mu mbali muy coono muy jànkuwanteeg boobu coono te ba muy nag parce que boobu coono ñuy ko kan jàng daal di jot ñu daal di ko jëfandee mu dem te jàng war parce que sëriñ baa nga mbëru te lu ko neex mu def ko ci moom ñu jàng ko tey loola te dañuy suñu booba daal di ko wax ambaane ay dikkana mu ma taw ci jabar ma ñu dee jabar ma ubbi na ci meneen dugal mu weer koo xam ñëw man damay lekk te day damay wàddu te du ma def dara mu nekk ci jànkuwante jabar bi doonoo denc doonoo xamuñ ñëw doonoo soxla yi ba amul soxla jabaram doon yi tudd ñu feebar xaar ci loxoom ñu wax leen ak boobu ne la guddi ngir fàtti ay bëri nekk ci boobu coono nekk ci boobu coono ba nekk mbañ a mudul coono màgga daal di tàmbali ci moom ba dund ca ba bëggaat mu ngi teewaat gan ba dund du ba bëggaat mu ngi duwati su gan ba jaama daal di ñëw muy jowaati di jowaati ba xëy weer di ci moom muy jànkuwante nga xalu dee ba bëri dee ñu tànn jàmm suñu ko xale jaalo ba bu defee nag jàmm bi gën a naka la ñuy ñëwee rek muy kalam ba nag yéen a fi doomu aadama yàlla ne indi na ko ci coono la man fii ci àdduna sax tuura la amuti mucc ci mucc ba rek moom lañ def mu teewal fii ci àdduna moom lañ def mu bànneex fii ci àdduna te fekk dañ ko seetlu waaye mos nañu fi ñu fi rek moo fi am waaye xane amu fi lekk mooy lan moo la duggee ci mbugalam tey dangaa ñëwoon ci mbugal rek dem jaww waaye xane amu fa naan mooy lan ñu ci mbugalam ma xadd mooy lan ñu ci toog fekk la yaa mu leen wax de lépp loolu bi defe ne bànneex la su bànnee xanaa jënd ci coono la addina boobu coono la yan la moo tax yàlla dindi na la fii ne moom yàlla dindi na la ci coono la ay wax dëgg laa damay njortu mu wàcc ci amoo na sax dindi ko defa dafa amoon doole ba nga xam ne daal kat tànkam su ñëw dund ñoo koy dindi dañ daje bu ñu nga def tànkam rek ñu doog a jéemal ñu def dañu ko man moom nag bu ñu wax ak yàlla mu ne yàlla moom ak yéen man ak yéen kawar dinaa leen ko xelal gën a moo doole man mu ne ndax dafa jox ko am na tam digal njub dañu wax dëgg laa sant laa leen suñu aar yi tam kàttan moom loolu jaay na ko te defe naa ndax moom am na sax kàttan ñu jëm ci yàlla yàqu ñu gërëm waa aarab tu aarab naa maa ci lu baram riyaa ji bëri ci noonu maanaam wamba naqara naa jëfaa maanaam jëfaa yoo xam ne ci saa yoonu bi sallallahu alayhi wa sallam balaa mu ko bayi rek takkal ko pexe ay xamu dana ma jottu àngam yararoo naka gisu ko aadum benn ndax dafa defe ne mu ñuy dund ne kenn gisu ko lépp yàlla yàlla xam na ko kenn ci jalo moom te dara la ko lu jëriñ la alam na yaa nga xam ne mënoo woon nga woon ñaar ko moom nit ki ay na ñu ñaari bët mu ne doomu aadama ji dina la bindee bakkaru la ñaari bët yooyu gisee maanaam wàññi saa maanaam ak làmmiñ bakkar la làmmiñ way waxe wa sa bakk yi ne ak yaari suñ ñu bakk la yaari suñ ñu tëdd sa làmmiñ duwoo waa day naaw tam dugal domaine dañu yaari yoon yoon xiw ak yoonu ay yàlla digg na nit ki fàttal ko ñaari bët ñaari bët fàttal na ko mbat moo ko bëgg a tëjee te bët bu la bëgg mucc ma yàlla rek gëmbal mu bindal la aw lamin lamin wi xam fa nga xamee waral ko mooy gëm yi ñetti bët gëm yi parce que ñaari fi ñi teg ci bu la bëggee yóbbu sa dara nga def sa yaari kuy mbir wax dara moo tax noppi moo gën ci jëli jaam lu muy nga xam ne aw yu lay wax yonent na ne di gëm yàlla gëm alaxira na wax lu baax wala mu noppi wax lu baax day moo gën noppi waaye nag noppi gën wax ab saxaan rek te gën ci li yóbbu gën ci bëñ li yóbbu nit safara mooy làmb ñoom de ak sa yëm de yéen dañoo yàq ñëpp ma leen tëj leen gàddu naa ko ak jamono da nekk diggante yaari tànkam la nekk diggante yaari taalalam da nekk diggante yaari tànkam ak la nekk diggante yaari taalalam mooy làmb ñoom ak sa yëm de da ngay muusal yàq yëpp lu ko mel la ay de suñu muusal yéen dina mën a xeex gàllankoor ak xar yi wala gàllankoor yi. wala ndax lii dafa nekk dina soxla kullu boo xam ne yàlla musal na ko ayu jiitam ak ayu bayam ak ayu làmmiñam musal na ko mbooleem yaay def bu dem dafa war a yore yore wala daa amal karam ñu foofu rek ak akabata dara nit ñi di ko yàlla mayee jumtukaay ju mel ni làmmiñ ak ñaari bët mënu ko wax mu góorgóorlu ci boobu ba jóg dara balaa dee. comment laataana lu xamal la maanaam xamal lu jéggi siraa ma jaaraana lu xamal la luy siraa mbiral magal jéggi siraa day dund mooy lan parce que xabat ni mooy gore lab jaam de mooy nga gore lab jaam jaam kër loo am rek am na ko soo ko goree lee kër lu leen ci moom gore na ci yow jota bara bon jéggi nga dem ak sa kër ngi dund noonu la yàlla bëggee ngoreel li nga wax njaam amul ci lislaam njaam am na ci lislaam naam waaye nag yàlla bëggul lu mooy jaam boobu ñu gën ñu gën a gën a gën ci njaar goreel ko wala jafar moom wala gannaawal ko wala demee wala boo gënee ko li moom itam nga moom moom rafet di ko leer ka la ngay lekk di ko wax di ko la ngay wax damu ko teg lu mu mënu de daanaka du njaar ay maamum di ko leer yoonu ci des na sabatini bu di borom kuy yàq man digum dama sabatini bu di borom dara ñaare soo mën na bare la jaam nga ngaal digum bu am dara ci sa piir nga leer ko ñam bu nekk ba suur loolu ci ko def mu di la sira sakat yaa ngi dund de digum mooy ku bàyyam dee dara ci jëlee sa dugg soo koy taajee ko ñam te loxo yam daal loxo digum yàlla baal na la gisoon te sa bakkaar sabon na nañ jëriñ la kiraar aw mu siin nañ jënd siin yaa ma trop ci nii bu du borom taxaw fuuf rek wala nit ki mu am xaar xam mu nga taxaw fuuf du la laam ci bum lekk soo koy soxale ale way jënd la kiraar rek wala maa ngi jàppe ne nit ki mooy ko amul dara maa ngi nga saafee yi dañoo wuute su fàttali laa miskin maa ngi ne miskin mooy ko am dara fàttali mooy koo xam ne la ma mbéyum ba ñu ne la ma mbéyum la sax saa leen yéen yéen a soxla mbaaxam maa ngi ne yàlla ko ne miskin ndax ma rafetul su fàttali suuf ba mu meloo ba mu dara ci fay def. saa leen yéen yéen yàlla ne am na fàttali ne ma kaan li ma fàttali na gaal ga woon ca saaru kaaf yi yàlla wax na ñëpp mu mën ay miskin lañ taale wu ñu naa delloo. ñu naan maa ngi soxla demal na su ma laajee si dara demal nga ñu béyoo yow karaw yi su ma ko amee taxaw mu nekk dina la sëñ si naan amaloo ko noonu waxtu waa nga xam ne dañ koy sëñ si ak ñu ñu takku yàlla ba def fa ñu ñu ma yàlla ba sëñ ko waxtu waa nga xam ne dañ koy sëñ ñun ñoo xam ne ci yéen a ne de te bañ defee loolu ba noppi nag ñuy dañ koy sëñ dëgëre lu baax dara lu bon mooy ñuy dañ koy sëñ ñun dañ koy sëñ yéen a ne de waaye que ñëwee rek waa ñu doon melal ak xaaral mooy rek ñu waxoon dañ doon rek wala dina ñaan ko fa rek dañ baax na ci alquran bu ma ñu ñëw ak xaaral ma sama ci ñëw waroon ci amoy ak ñu ma ñu rek lañ dem kaw naarum safara bu ko def ñu ko ci ñu dëpp ci dem kaw rek ñu safara wax ay dañ leen dëpp ñu ko ci dem kaw seen saxat leen jamu rek